ñun kilifa gu tedd gi Cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu Serigne Saliou di ñaan yàlla mu yàggal ko fi loolu te wéral ko ba naal yi am ngir liggéeyal ko maamam liggéeyal ko lislaam mu amee ci ndam lu kawe njort te mu ànd ko noonu kon nañ déglu Cheikh Mouhamadul Bachir Faye mu jottali nu kàddu sëriñ bi su ko defee buñ noppee sëriñ bi ñaanal ñu ñu yeewee ko ba déwén ak jàmm incha allah bismillahi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi tàmbali tudd yàlla di nuyoo nuyoo bi ñu sunu boroom boole muy ñaanalante jàmm di nuyu ci njàlbeen gi tam sunu kilifa gi sunu sëriñ Cheikh Mouhamadul Mourtada Salih Mbacké di am yéeney yëkkati ay kàddu ci turam di leen sant bu baax ci seen taxawaay yu am solo yi nga xam ne yéen a ngi koy taxawee ci kër gi di ko taxawee ci mbooleem euh, lépp lu ñu yëkkati lu jëm ci doxalin yi yéen a ngi ciy taxaw kémtu lay kàttan ci biir cant googu tam wala ñoo ñëw ci cantu gàmmo gi sax ñu sant leen ci seen taxawaay ci liggéey yi nga xam ne weesu na jamono yi ñu weesu ndax euh, ci cosaan euh, diggante màggal ak gàmmo ak euh, xëy na tool yi koom loolu moo nekkoon liggéey bi waaye bu ngeen xoolee at mi weesu am na yeneen yu ci dolliku yeneen te wane ngeen ci taxawaay yu mat sëg lu mel ni liggéeyu daara ji ci ngaabu seen taxawaay fes na ci lool sëñ bi ñu leen di sant bu baax di leen gërëm ndax boo xoolee diggante bu yàgg kër yi daara yi niñ mel awoon amoon na coppiku ndax yàggaay bee tax waaye ñu yeesalaat ko yeesal loo xam ne ku fa dem ba gis lañ fa def ak lañ fa nam def so ca def sax da ko xeeb ndax yéene ya ëpp na loolu la ne ci biir tam ci li mu làq ci lañ fa war a jëriñoo tam kenn mënu ko misaal wala di ko xayma sax ci ci xaalis wala ab jox-jox waaye nag la fa nekk yéen a ko def kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci taxawaay boobu yi ndax kat buñ ko xaymaa sax yaakaar na daara ja la fa dem ci ñi ko doon saytu jege na wala moroom bu tuuti ñeent fukki million te loolu rekk du liggéey bi am na yenn xam na ne xel koom ay daaraangu ci daaraangu foofu daaraangi fii ci ngaawu ak ci biir yeneen defaraat yu fa war a am te loolu tam ñun ñoo ko war a def war gi bi ñu war nag terewul sëriñ bi di ñu sant ndax loolu waaw góor la rek ak ak ak yeesal ak gën a ñaax ngir ñu gën a am taxawaay ci loolu kon nañu xam ne liggéeyu gaawu boobu Ah, am na fu mu yegg ku fa dem da nga gis fi mu toll waaye nag li ñu nësa nas ko mooy at mu jot ñu songu benn ci daara yi defar ko ba mucc ayib bu ñu jëlee daara génn daara xel ko ci at bii di ñëw ni a mel bu jël beneen daara bu ko def noonu ndax liggéey yi moom du jeex te kat liggéeyu Serigne Touba dégg naa ko ci suñ Serigne bi. mu ne jarut a yërëme kenn koo ci yërëm sax daa mel ni gàllankoor la koo ci bàyyi mu demee ci li mu man ak lu mënul Sëriñ Tuubaa bu koy fay fay ko lu kawe jortam ak lu kawe lam ci def kon nañu la xasaayu gën a takk gën xam ne liggéey des na lu taxaw ci bu baax a baax liggéey yooyu itam xam nga ne dolli nañ ci liggéey ci sànni ginnaaw liggéeyu daara yooyu liggéey yi aju woon ci koor gi koor gi am ngeen ci taxawaay bu baax a baax li aju woon ci eh, université taxaw ngeen ci taxawaay bu baax a baax nga ne kon liggéey yi yokk na lool buñ ko gam-gamlee ak nam daan toll waaye lépp rek wane ngeen ci yéene wane ci ay jëf wane ci taxawaay bu mat sëkk loolu sëñ bi gis na ko ñu ngi leen ci sant di leen gërëm di leen ci ñaanal bu baax a baax su sant yooyu weesoo tam ñu leen di sant ci euh, nii ngeen taxawee ci guddi gi tey ci mbooleem waajtaay nga xam nga màggal ak gàmmoo day leen ci jegewaay bi waaye waajtaay yi feeñu ci diggante bu gàtt bi feeñu ci ci xeeti bernde yi ci mbooleem xeet yi la mën a doon baax a baax xeeti yàlla yi tamit bu baax a baax lii ñu màggale guddi gi tey wane na ko dëppoo ni ko Serigne ndax sëñ bi li mu bëgg mooy ñu màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa ah boo xoolee Serigne Saliou ci jamono bu ko daan fàttali saa yu waxee màggal bu koy yëgle ca ca ca ca cat la ci lay ci lay toftal gàmmu nga xam ne yitte ji mu ko joxoon waaye nag loolu itam nemmiku nañ ko wax dëgg yàlla doxin wi ñu doxee nuru na ko kon loolu ak cant la kon li nga xam ne moom lañu war a xam ci dundal guddi gii mooy ni ñu ko Sëriñ Tuubaa jàngale defe nañ ko noonu waaye wax gi day gën a yeesal gën a feddaliku ba kenn ku fi ñëw buy yóbbu buy dem xam-xam li mu doon sëñ bi dafa wax ne ci dundal guddi gi ne guddi la goo xam ne lii guddi gu màgg la guddi gu barkeel la guddi gu warmal la moom di ko màggal lu war la rawatina ñi nga xam ne dañoo jiite aw nit kon loolu dafa mel ni mënta ñàkk warteef la ci jullit bi ak li nga xam ne moom la ko yàlla defal ci ay ngëneel te jaaree ko ci borom guddi gi nga xam ne bu dutoon moom loolu yi du jàppandi waaye yàlla sunu borom moom bu dogalee ay dogalam koy wutal ay sabab yoo xam ne ci la nit kiy jaar ba mën a jot ca loolee ah, dundal gi ci sunna tam ni ko Sëriñ Tuubaa waxee te ne nañ koy màggal ci sunna sunna mooy di ko teg ci lépp lu génnul lislaam loolu mooy sunna nee na ko ko defee noonu màggal gi nga màggal guddi gi da lay wommat jëme àjjana màggal gi da lay wommat doon li say waaye nag loolu ki ko sellal te màggal ko moo koy am te tafet nañ ci jortu lool ci niñ ko tàmbalee ba fii ñu si nii sëriñ bi waxaat ne képp koo xam ne màggal na guddi gi euh, guddi euh, sunu yonent yonente bi nga xam ne mooy buntu njub booy wut ci mo ngay jaare kooki kenn du ko xisaab kera yowmal xiyaam kon na ngeen warmaal guddi gi te màggal ko ah, kon lu bari la daanaka jàng nañ xasida gi mooy jasbul xulóob yu bari si la sëñ bi dafay wax yooyu yegg na sax ci wax ne képp ko màggal guddi gi guddi ngën gi mu def mii di Ahmad mel na ni ku shahid shahid mooy ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo aar lislaam dimbali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba lislaam mucc bañ mën cee jot nee na xam nga ne loolu jomb lu la lu jafe la waaye loo xam ne boo ko màggalee am tuyaaba joojee loolu jar naa sellal jar naa màggal jar na foo nekk nga bàyyi la nga doon def ñëw ànd ko ak ñi koy def rawatina di ko def ci keppaaru ki nga xam ne moom nga doxalee sa diggante ak sa borom mooy sa sëriñ ndax loolu yaakaaru la ñi nga xam ne dañ fee def seen wërsëg kooku seen bopp rek lañ ko defal dinañ leen sant gërëm leen ci aada yi waaye loo ci def rek yaa ko moom sëriñ Tuubaa dafa wax ne képp koo xam ne joxe nga ci dara ci guddi yonent gu tedd bii nga joxe sa alal waaye nag jubluwoo ci puukare mbaa yàq mbaa dara waaye danga koo def rek ngir jëmb yàlla alal jooju lu mën a toll donte dërëm la sax yow mel nga ni ku teew ci xeex ya ànd ak yonente bi ak metti metti ya nga muñ ko ba rawale lislaam léegi am nga yoon bu toll noonu loolu nag ah, lu am solo la bay ah, gi nga xam ne nag moo ci topp ku def loolu yi nga xam ne donte yoroo ko sax waaye waaye teew nga sa xol teew na maanaam euh, euh, wane nga yéene sax am nga tuyaaba képp koo xam ne teew na fu ñuy màggale guddi euh, ngën gi mbindéef màggal ko ak ña fa ne di def ay mbégte bu amee lu am suukar indi bu amee ndawal indi mooy lu ñuy lekk am lu ñuy naan mën na koo firi nee na nit koo kii am na nga ñaay lu rëy loo xam ne dafay saxalal ay mbégte te loolu dagg mukk mukk mukk lu tasee mukk lu koy lor te gis kañ ci ba kon lu bari la loo xam ne day dalal xel màggali guddi gi ci keppaaru Cheikh Mouhamadul Mourtada Sall kon nañ rafet njort ci guddi gi ah, ah, ci noonu moo ko waxee léegi ah, li nga xam ne nag euh, moo des mooy euh, ku ne xam na ne waxtu yi bu tollee fii euh, tool yi dañ koy xalaat tool yi dañ koy xalaat noonu ñu ko waxe woon nag at mi weesu dana méngoo ak nii mu demee ndax liggéey ba ma nga fa waaye jàppaguñu date boo xam ne ci lañ fa war a jublu ngir defare ko waaye su yëgsee ba sëriñ bi jàpp ko ah danañ ko yëgle ci yëglewukaay yi nga xam ne moom la daara yi di jëfandikoo ci xeetu réseaux sociaux yi ak yi nga xam ne ay canal de communication la dinañ ko ci jaarale ba ñëpp dégg nga xam ne di sàngam la lañuy def ni nangam barab sàngam lay doon kon li am solo ci jamono ji mooy nañ ko bàyyi xel xam ne sunu mbir la te ñoo ko war a def kenn ku ci nekk muy dox di ko doxaale muy yéene di ko yéenewaale fas ko te xam ne mbiram la kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax euh, loolu mooy kàddu yi nga xam ne moom la bëggoon a wax ci turu sëñ bi ah boole ci tam di gën a feddali loolu nga xam ne waxoon naa ko ci tàmbali bi waaye dama koy gën a feddali mooy eh, eh, jëmmi liggéey yi nga xam ne moo aju ci daara yi ndax xam ngeen ne daal mbirum masuliya la mbirum responsabilité la waaye sëriñ bi ni mu ko jàppee lu rëy ndax eh, am tuut tànk yaakaaroo fenn indi ko fa nga yaakaar joxe ko fa léegi yow daa mel ni génnoon nga ci sax waaye moom xam gi mu xam loolu xam doomu aadama ni mu amee solo ak li mu war a mën a def ak li yàlla denc ci moom ci kàttan mu xalaat ne dañ leen toppatoo lépp luñ mën nañ ko ci def boobu ëllëgee ku fi jógee xam ne jële nga fi dara nga xam ne bu ñu demee ci daara yi ba mokkal alxuraan ñu jël leen wéyal ak ñoom ci wàllu xam-xam wéyal ak ñoom ci wàllu njàngum xarala ba kenn ku ci nekk bu fi jógee du naw kenn ku mu mën a gis te du am complexe ci dara jàngal ko làkk yi jàngal ko civilisation yi ba nga xam ne bu mën a dem du fa doon gan day xam fi àdduna bi toll loolu lu am solo la loolu mooy li nga xam ne sëñ bi mi koy xalaat te mi ngi ciy dox ay jéego waaye woo na leen na leen ci ngeen ñëw ci te xam ne foofu la mbir yi toll ngeen ànd ci ak ak moom kenn waru ci xaar kenn ah, léeg-léeg nag ah, tam metti na ci yarkat yarkat li gën a metti ci moom mooy eh, mu yar ba tollu fenn eh, gisatu ki muy yar te léeg-léeg loolu day nekk ci ñenn ñi maanaam yar nit ba mu mokkal alxuraan ak loolu ni jafe jafee ak toppatoo ba ak li ci aju mu tàmbalee bind maanaam wala mu mokkal jékki-jékki gisatuñ kooka ñu buñ ko lijjantee mu dellu ci waajuram te waajur yi doxu ci ay jéego wala wanewut luy wane kooka dafa war a delsi loolu metti la loolu nañ ko bàyyi xel ndax njëbal yi ñu jëbalu ngay jëbale sa bopp àdduna ak alaaxira amatoo sax dara ci sa bopp yow waaye waxuma nag ki nga xam ne danga koy joxe ñu teg ko ci aw yoon boo xam ne yow bu fekkoon ne lu ñuy laaj dara la doo ndax loolu lu ñi nga xam ne defuñu ngir yàlla waaye dañuy def ngir àdduna wala lu jëm ci ñoom buñ ne buñ naree toppatoo nit ba mu egg fenn fi boo néewee doole doo mën a fay loola waaye nag loolu lépp xoolu sëñ Touba la xool sëriñ Saliou ak taxawaayam bëgg a dimbali nit ñi rek xeetali leen te loolu mooy li nga xam ne moo fi indi woon yonente yi te loolu ci la nekk kon loolu ñun ñun ñëpp nañ ko xam te te te jàppe ko noonu ah kàddu yi mujj yi mooy di leen santaat di leen gërëm ah, ah, ci seen taxawaay ci mbooleem liñ fi yëkkati lépp di sant di leen gërëm ci gàmmo gi ak ñi ngeen ko doxale ca màggal ba fi mu ne ak liggéey yi nga xam ne moo fi dolliku ci liggéeyu cosaan yi loolu lépp sëñ bi gis na ko mi koy bàññi xel mi koy bàyyi xel jërë ngeen jëf xam naa ne bu ñu wàccee kàddu yi ñu jox bi mu ñaan waaye balaa loolu tamit euh, mi ngi gërëm euh, ak sant tamit mbokki boppam yi mbokki boppam yi nga xam ne mënoon nañoo euh, fu ne mën nañoo sax gàmmoo fañ ne ay ñi koy dundal wéyal ba fajar ci teewaayu sëriñ bi ginnaaw julli gi sëriñ bi ànd ak mbégte lool ànd ak tawféex gu yaatu yëkkati kàddu jagleel ko mboolem mi fi woon ñëpp waaye it jagleel ko mbooleem jullit yi ak taalibe yi teewlu ñëpp jëm ci li yiteeloon sëriñ Saliou Mbacké di liggéey ngir daara yi daara Xelkom ak daara Ngabou soññe yu am solo tukkee ci sëriñ bi yoo xam ne moo jëm si yeesal gi ci taxawaay bi ak ni nga xam ne noonu la si mbooloo mi war a taxaw yépp di ay soññee yu jëm si njàngum alxuraan ay soññee yu jëm si taxawu ndonga yi ay soññee yu jëm si taxawu daara yi Serigne Mourtala Mbacke wéyal liggéey bi nga xam ne Serigne Saliou Mbacke si la nekkoon jox leen ma ndaw ñi ma def si ñoom li Serigne Touba defoon si mag ñi la Serigne Saliou waxoon wax joojee ak yooyu lay kaddu la Serigne Mourtala di wéyal njàngaleem ndaw ñi. tarbiye leen yar leen rek ko yitteel bokk na si li gën a fës si yële soññee di ay soññee yu fës si guddi gu tedd di ay soññee yu fës si guddi gu màgg guddi gu ñuy màggalee gën gi mbindeef yonent bi alayhi salaatu wasalaam nii lañu ko dundalee nii lañu ko màggalee màggal gu ànd ak jàmm màggal gu ànd ak salaam màggal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 gën noo gàtt ndoog tawféexi sëriñ bi